sifflé na si diggante BKE ak kii di alliance alliance jokkaas na arbitre buusal da nga toog alliance ak BKE alliance moo dellu ginnaaw noonu alliance jokkaas na BKE nga teg di ci ñaari mbër bi mooy combat spécial bi nga waxoon ne signature ba tey ngay di wane lool Bécaye mu ngi la tekkale di ko déglu daay tibb suuf alliance Bécaye Bécaye moo ñëwoon ginnaaw ñaari mbër yi lee ngay waaj a cokkaasante alliance Bécaye bi bu ñaari mbëri li ñu wax si léegi sa géew ba yëpp du yombee noonu taxaw leen bëre combat spécial la dafa war a spécial déggal géwal moom moom bu kaay critiqué sax day wax <laughs> géwal ma kaay lu mu critique critique noo def bu bàq ci digg géew gi arbitre woowaat na ci digg géew gi daal di siflewaat ñaari mbër yee tàmbali di lewtoo si diggante Bécaye ak Alliance Alliance moo takk moo takk moo si bopp bi Bécaye moom ngay moom ngeen gis noonu di def ay déplacement alliance mu ngi koy topp rek dem Badou day def lu tubaab di wax naan arrière bu muy sauté ab jox na ko avertissement arrière yi day bëri ab bi nag lii si laamu la taw Bécaye alliance dafa mel ni Bécaye dëgg de jël de Bécaye jël tànk ba da koy daan na ko déedéet bañ da koy jël takk na daan na ko woo loxo ba Alliance daan na Bécaye loxo ba la daan na Bécaye loxo ba la daan na Bécaye loxo ba passe si suuf loxo bala fàtte oh Bécaye demee too Bécaye demee too Bécaye xamul fu mu jëm Alliance nga def si moom ndeysaan li mooy fair play mënu koo xool mënu koo xool luñ waxante si combat ba la luñ waxante si làmb ja